boo dee xool pays européens yi am na lu ñuy wax les nouveaux droits nouveau droit boo déggoo ñu koy wax moom mooy nit ñi léegi nañ leen bu ñu leen bu ñu leen bu leen tënk ci dara nañ leen bàyyi ñuy def lu leen neex góor ñi bu ñu bëggee sëy ci seen biir nañu sëy ci seen biir jigéen ñi bu ñu bëggee sëy ci seen biir nañ leen bàyyi ñu sëy ci seen biir am na sax réew bu indi fan yee ñu weesu ah, weer yee ñu weesu ni bàyyi bu bëggee sëy ak doomam nañ ko may ñu sëy ñoom ñaar waaw ñoom dem nañu ba foofu maanaam li ñu tuddee nouveau droit mooy bu ñu tereeti doomu aadama lenn lépp loo xam ni bëgg na koo def nañ ko ko may mu def ko yegg nañ dem nañu ba yegg foofu